waaw tey ñun ñoo fi ñëwoon euh, dimanche le 5 juin mu tombeek journée mondiale de l'environnement ñun waa groupe LDVA ànd defar suñu plage ñu ñëwoon fii nii doon sensibiliser nit ñi di leen wax que ni euh, nature bi ñun ñoo ko war a defaral suñu bopp c'est pour cela que avons euh, def initiative pour montrer aux gens surtout de conscientiser les gens que ni euh, Malika rawatina suñu place bi dafa place bo xamné nit ñu dañ donc su nekké dañ fiy il faut aussi tamit ñu def le tout ba nga xamné képp ku fi ñew dina ko gis eh, comme Brésil exemple lay wala comme Cap-Vert kon donc ñun suñu plage suñu euh, géej gi ñun ñoo ko war a sàmm c'est pour cela tey mu tombe woon journée de l'environnement ñu ne woon tey dañu fiy ñëw ñu conscientiser nit ñi parce que am na ay pas yu ñu fi jot a def pas yu ñu fi jot a def mooy euh, dép defoon nañu fi ay dépotoir de poubelle defoon nañ fi aussi itam ay ramassage des ordures tey ni mu tombé aussi journée de l'environnement ñu ne woon dañuy ñëw sensibiliser nit ñi pour wan ni leen ni tout le temps suñu yoratee ay sachets dañ ko wara diko def ci poubelle bi suñ ko défé ci poubelle bi aussi euh, incha allah dina am ño xamné dinañ ko jël yóbbu ko dépotoir. euh ma ngi gërëm équipe bi fi téw tay euh bi profitoale ci journée de l'environnement bi tay pour ñu ñëw def ben sensibilisation bu ndaw mais aussi sensibilisation bo xamné dañ koy médiatiser pourquoi ñu jéem ko médiatiser parce que euh, ñu fi ñëw ci sur la plage ci kër yi lañu joggé euh, buñ ci jaarale message bi bu sensibilisation bi xam naa dana egg fi fi Malika un peu partout parce que doon na média boo un peu partout parce que ñu ngi suivre Nous avons ñu profité de l'occasion bii lancer euh, cette sensibilisation cette sensibilisation dafa reposé aussi ci ay journée yoo xam ay éditions yoo xam ne defoon ko lu alors aujourd'hui euh, ñu profité de cette cette journée puisque c'est de l'environnement pour nous jéem sensibiliser pour ñu mën a am un cadre de vie vraiment fréquentable parce que nous ñu fàtte ni ki suñu plage bi euh, dans la plage nous xam euh, ñu beaucoup beaucoup bëree bëree bëri dañ ko ci fréquenté jógee ko Malika jógee ko Yëmbal jógee ko euh, Jaxaay Kër Massar tout ça ces gens là fréquentent cette plage donc cette plage bu ñu ko ba ñu ko toppatoolee ba nit ñi mën fréquenter finalement ça va se reposer sur nous encore moo tax vraiment ñun bonne action lañ mën def pour au moins suñu plage bi ni ku fi ñëw du ñé kenn ko xamné peut-être jogé na ci yenen ci yeneen plage yo xamné tay au Sénégal bo fa démé ñu naan plage bi dafa dafa set wala plage yi dafa dafa dafa dafa dafa dafa clean donc moo tax ñun euh, association bi euh, ñu taxaw tam vraiment ñu lancer cette sensibilisation képp koo xam ne jóge nga sa kër nga ñëw ci plage bi loo fa mënta àndaale poubelle yaa ngi fii ñu samp un peu partout ñoo ñoo xam ne dañuy jaay bu fekkente ne d'anga andale àndaale tam poubelle on a pris l'initiative de leen donner des poubelles fu ñu nekk nag ñu jël leen ay matériel boo xam ne suñu jaayee bay wàcc dañuy ramasser lépp def ko seen poubelle am na am charretier boo xam ne dañ ko fiy bàyyi moom après moom dina ramasser dem teg teg ko ci ci ci seen moo vraiment euh, on lance un appel solennel à toutes les populations Kër Malika Yëmbël plage bi suñu plage la bu setee ci ñun la bu tilimee it ci ñun la waaw man la Masseye Gay, maa ngi wax ci turu l' La Vie des Autres mu nekk initiative boo xam l'association association bi da ko pour setal place, Malika place, place bi nga xamante ni fu waaye ne la waaye di jugé. moo xam Pikine Kër Massar benn Brac gars yi dañuy jugé fu ne ñëw di fi di si fréquenté wu yaakaar naa ni gënoon na difficile parce que avant ñuy def poubelle yaakaar naa fii dafa woon fees tell ak ay mbalit mais bi ñu yàlla dimbalee ba nga xam dañu def ay été jël ay poubelle def ko fixé ko léegi nak nit ñi ils sont ils ne sont pas habitués que ñuy jël ay affaire diko def ci biir poubelle bi premier jour gars dañ doon def ci sous poubelle lañ doon tek affaire yi mais biñu ñu leen sensibiliser dem nañ ba gis nañ ne fu mu toll nii poubelle yi day fess te yaakaar na am na collecte boo xam ne deux fois par semaine dañuy collecté saret bay ñëw jo ramasser ko collecté ko bu ko defee def ko si dépôt bi bu ko defee gars yi jibal ko waa UCG mu nekk initiative boo xamante ni bu rafet la primo ñun rek ñoo ko doon def muy association la vie des autres mais yaakaar naa ne mi ngi commencé am ay concurrent am na ñoo xam ñu ngi ñuy fekki si comme mairie bu demee ba jël ay initiative di jéem ut ay maître nageur di ko fi samp yaakaar naa bu gisul woon ñoo xamante ne dañuy ñëw di nettoyer mbalit bi mu set du am volonté boobu di pour di ko def. secondo bi nga xamante ni dama ko siy wax mooy ñu fexe ba année bii ba nga xam mu am zéro noyade mu bañ a am benn lap si année bii loolu la ñuy xeex. parce que gis nañ daaw li mu amoon si ay lab daawaati géej chaque année plus de 20 personnes dañ fiy dee yaakaar naa ne géej gi chaque jour ñu wax ne géej gi du géej boo xamante ne bu ñu war a sangu nit ñi gi dégg ñi nga xam dañuy ñëw surtout li nga xamanteni ñom ño ñoo c'est la première fois que ñuy ñëw zone Malika ñooñu ay innocent lañ xamu ñu dara ci géej gi bu ñu ñëwee du xam fo xam canal la ak fi nga xamanteni du canal ñun ñi nga xamanteni ño nek sur le terrain ño leen wara sensibiliser ba nga xamanteni ñu éviter noyade boobu. teunk na wax ji yépp daanaka jaaraat ci la rek kon loolu du jar ñu ci yaatal nun li nuy wax rek mooy yal na nu yàlla gën a dimbali defal ñu tawféex ci yëngu yi def ci barke aussi ndax sunu borom lépp lu mu barkel sikki sàkk amul ci ne dina am ay tànki kanam waaye lu sunu borom seetaan tàmbali lay am waaye du mujj kon yal na nu yàlla dimbali ba mu amul mujj yal na nu yàlla dimbali ba bés ñëw xam ni am na ay initiateur yu fi nekkoon doon def dara waaye dem tey toll na foo xamante ne nii Sénégal ci jëmmi boppam wërngal këpp ñëpp xam nañ ni ndekete am réew pour mu jag doomi réew mi képp ñoo koy jagal loolu lu ñuy lancé la pour nun suñu bopp njëkkee ko ci suñu ñoñ suñuy waa kër suñuy dëkkandoo ñëw fii fii nag ñëpp a fii daje ku weex ak ku ñuul làkk yëpp a ngi fi xeet yëpp a ngi fi jafe na nag booy sàmm ay bëy wala ay nag wala leneen wenn wu yat képp mën na leen sàmm koo duma rek mu jàpp ci yoon waaye nit ñi bokkuñu ni yàlla wuutalee loxo yi noonu la wuutalee doomu aadama yi am na ci ñoo xam ne booy wax ak ñoom ci li leen di jariñ sax faaw ñu wax ak yow ci waxin woo xam ne wu métti la kon may lancer appel ci ñi nga xam ne ñun ñooy ànd ñu yaatal sunu dënn nekk ay nit ñu ouvert nekk ay nit ñu responsable nekk ay nit ñu nangoo muñ te xam ne kuy def lu baax day nangoo muñ kuy def lu baax day xam ni damay taseeg façon doomu aadama bu ne te nam lay xoolee moom moo ko xam yow loolu mënoo koo dindi ci moom kon yow yaay fexe ba yow li nga bëgg mu def ko mu def ko ci nam gën a rafete borom bi nag la ñuy ñaan lu ci rafet ci yëf yi yàlla na ko gën a yokk lu ci ñaaw yàlla na ñu ci rëtire yàlla na ñu ci jële ñu ngi ñaan suñu borom mu defal ñu tawféex ci yëngu yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah